libération mel ne ku naan ak lu ci mën di xew àllarbay tey ji àllarba la ju nar a bari jalti-jalti ndax muy Ousmane Sonko di Ndeye Khady Ndiaye mi moom salon Sweet Beauté ba coow la amee woon ñoom ñaar ñëpp war nañoo janoo ak juge bi tey ji tey weeru mars tey mars

salon bi di Ndeye Khady Ndiaye bu dee Ousmane Sonko juróom-ñeenti waxtu ci suba lañ ko woolu Ndeye Khady Ndiaye salon bi fukki waxtu ci suba lañ koy déglu Sidi Ahmed Mbaye déglu lañ ko ni démb te lépp lu mu xamante mbiri ne wax na ko yéeglekaay bi ne moom Ousmane Sonko njiitu Pastef nee na kon justice bu Sénégal te deewul te coow li lépp am ci kawam complot la gu te ay waxi dem mooy ay waxi tayam moom Ousmane Sonko njiitu Pastef ni loxo muy jënd ak taskatu xabaar yi moom njiitu Pastef Ousmane Sonko mer bu futu la def ginnaaw teggub yoxo gaayam yi nga xam ne ma ngi mel ni mbàccum gerte yéegi likaay bi ne fukk juróom ñaari lingeer yi nga xam ne teg na loxo ni ki tey ji la ñuy gindeeku seen bu ëllëg maanaam ci kaw gàttal tey la xam ndax dañ leen bàyyi am déet